Euh, booy Niang numéro de maa lay nuy waaw maa lay fay. di la tey moyens nga ñu mën a defal ci aji dem gi Père Balla. waaw maa ngi koy siggi ndigaale àdduna di ko siggi ndigaale ñëpp parce que Père Balla Père Balla ñëpp la te témoignage bi may def si moom mooy nekkoon na mbër boo xamante ni suivre na carrière ba mu jeex carrière ay mbër ba mbër boobu nekk roi des ba am ku ci génne ku nekk roi des kooku mission mato man na waaw di ko ñaan rek fu mu jëm yàlla na ko dàqal fi mu jóge waaw. dafa mel ni ñàkk nañ guy gu mag ci ci ci géejawaay. ñàkk nañ symbole. koo xamante ni sooy waajal bi sax su fekkee ragal nga dina ko xam su fekkee am nga fit dina ko xam yàlla mayoon na ko ñaar yooyu boole tamit xama des si ñun jom ak fulla ak fayda. ñun ku ci nekk rek def na si yow jom joo xamante ni boo nekkee si làmb ji ku ñëw ci làmb dina xam ne kii ko am jom la waaw ñun daal ñàkk nañ daal waaw ñàkk nañ ñàkk nañ waaye yàlla mi ngi fi waaw yàlla ñu yàlla taxaw téyel ñu boppam. yàlla defal ñu xolum muñ. defal ñu xolum muñ. na sarax si yàgg si. amiin amiin amiin. jërëjëf jërëjëf